jëfalaat mbokku téléspectateur yi teewlu télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg ki ak ponk yi ci gën a fës mu aju ci njàng ak njàngale ak coow li ci université Gaston Berger euh, ba nekk ci diwaanu Ndar Géej xam ngeen ne ay dongo dañoo teg loxo euh, kenn koo xam ne dañoo jàpp ne daal dafa bokk ci takk der ndax dafa raaxaloo woon ci seen biir da jëlee xabaar euh, di ko joxe moom nag nee ñu ma nga bokk foofee ci brigade de recherche ñoom fan ko denc waxuñu waxuñu ko lu ci mën a am ña ngay jàmmaarloo ak way takk der Sharia fii itam eh, ci université bu mag bi nekk ci Ndakaaru ñu dippee ko Cheikh Anta Diop itam eh, loolee la ñu fa nemmeeku ndongo yi bi nu xëyee eh, dañu gàddu seen i doj jàkkaarloog takk der yi ñuy jolloonte ay lacrymogène ay lacrymogène ak i xeer lu ci mën a am ñoom takk der yi sax nee ñu benn jamono dugg nañ ci biir université ba di dàq ñi ndongo yi ak lu ni mel beneen ponk mbokk yi mu aju itam ci Coupe d'Afrique des Nations ba ñuy amal ca Cameroun kuréel gi lëkkal lële club ya fekk baax Europe euh, bind nañu bataaxal euh, jébal ko CAF ak FIFA di sàkku ci ñoom ñu neenal wala sax ñu dàq Coupe d'Afrique des Nations euh, bi ñu fas yéene amal fii ak lu matul weer ca Cameroun. la tax ñu joxe bi xabaar nee ñu lu jëm ci kaaraangeeg joueurs yi aj rawatina seen wàllu wér yaram ak mbas mi dañoo gis ne Cameroun matalewul jumtukaay ya ca war li ci yenekaay daan ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxirlu ma ñëw léegi ñu faram fàccee

rafetloo ti ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futur Média xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yi dañu koy door ak nanu ko junjee euh, mu mel ni foofee ci université Gaston Berger ba nekk ca diwaanu Ndar Géej gu ney sànnaar yi te dañoo xëy mer ba futtu teg loxo euh, kenn euh, koo xam ne dañu jàpp ne brigade de recherche la bokk dafa raaxalawoon ci seen biir ñu dippee ko agent bu renseignement raaxaloo ci seen biir jëli xibaar ak lu ni mel mujjee nañ ko daal xàmmee neenu ba teg ko loxo am fu nu ko denc seen ib jàmmaarloo ci suba euh, la ko doon amal ci université ba Ousseynou Diop toogal ñu euh, foofee ca diwaanu Ndar Géej moo doxantu ba sànnaax Ousseynou. waa rek noonu la si euh, Ndar Géej Berger bu Ndar comme ni nga ko gisee nii sama ginnaaw. étudiants yi ak force de l'ordre yi ñuy jàmmarloo étudiants yi nag li nga xamante ni rek moom la ñuy exiger euh, bokk na ci université Bambey seen xale bi nga xamante ni euh, dafa faatu te ñu ne intoxication moo ko daal di faat ñu ni ñu ubbi ci xibaar yu leer leneen itam loo xamante ni wax nañ ko ñu ni université bu Bambey coordination ba nañ ko intégré waaye tamit force de l'ordre yi nañ fa daal di jugee ñoom seen bopp nag léegi la ñuy def benn conférence de presse Djibi Dieng moo i kàddu ñu waxaat ñu ne ñu dugal de force de l'ordre ci biir université boobu pour massa continuer di massacrer étudiants yi loolu nag ñun duñ ko nangu parce que université Alioune Diop de Bambey dafa nekk université boo nga xëy ni heure saa su nekkee si problème mooy njëkk a ñëw pour réer xëyee encore pour wane logique gu état ak wane seen dëgër bopp au ñoom ñu ñëw def rôle médiation wala ñu ñëw jéem a calmer la situation dañoo yebal ay nit pour ñu ñëw infiltrer ñu pour jàpp suñu élément mais heureusement tourné wul niñ ko bëggee woon parce que élément bi ñu yebaloon pour mu ñëw infiltrer ñu renseignement généraux la mi ngi doon jël ay image di di di capturer ay image délégué di di ko dugal si téléphone am jàpp nañ ko mi ngi ñu yee li ñu demandé état bi nag lii la gémi yi nekk Bambey di lëmbe nañ génn université ba gémi place am du université kon mi ngi noonu étudiants yi gis nga leen ak force de l'ordre yi mu mel mbir mi daal nay metti seen diggante euh, ci fi nga xamante mooy université Gaston Berger bu Ndar ku Ousseynou Diop ñu jaajëfal ko bu baax mu mel ni ndongo yooyu nekk foofee ca euh, université Gaston Berger di jàppal tànk wala boog di jàppale seen naataango yu nekk ca Bambey fii itam ci Ndakaaru euh, daara ju kawe ja itam di université Cheikh euh, ndongo yi ñoom bu ñu xëyee dabbaliwaat nañ la ñu doon def démb ndax xëy nañu di jàkkaarloo ak takk der ya ñi yore ay lacrymogène ñoom ndongo yi ñu gàddu seen i doj ba mujjantal ga sax ñoom takk der yi nee ñu dugg nañ ca biir daa daara ju kawe ja Euh, ndax foofu la mbir mi mujjee euh, lu ci mën a am euh, daañ ci gën a ñëw ci ni mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jataayu xibaar ñu des ba tey euh, ci njàng ak njàngale mbokk yi ci daara yu kawe yi foofee ca diwaanu maatam université ba nu fa yéene dippee euh, Souleymane ñang moom it euh, jur na fa coow coow la nag la ko waral nee ñu dañoo bëggoon daal UFR yi ñu yóbbu ko diggante Kanel Agnam ak Ndioum askanu maatam ne du ci daal la ñu bëgg mooy ñu tabax ko foofee ca maatam te def ko ci benn bërëb ndax loolu mooy seen bëgg-bëgg maatam dañu fee fekk yi Ali Bandel Niang ak El Hadji Ly ñoo fa toogal groupe Futurs kuréel yu Fouta Tampi yi association dëkk dëkkaan yi ndaw leader politique yi bëri na ay organisation di seen njiit yi nga xam ni ñoo boole joxante loxo bokk ci ab collectif ngir défendre université Souleymane Niang bi njiitu réew mi na ma amal ci Matam gannaaw bi xibaar bi jibee ci CRD bi nga xam ne ministre Cheikh Oumar moo ko doon jiite ci Matam mi wën na ni yenn ci banqaasu UFR yi dañ leen di toxal ca Agnam ca Ciloñ ca Kanel ak ca Ndioum nekkat ci diwaanu Matam jàmm gaa ñi ne nañu bu kenn laal seen université nde seen moomeelu bopp la. ñun d'accorduñu ci benn yoon fii ci région Matam mu am multisite de l'université Souleymane Niang ñun li ñu bëgg mooy que mu doon benn université maanaam mono un monosite boo xamante ne euh, suñu doom yi mun nañ ci jàng te duñu dem fu sori te muy wàññi euh, seen déplacement bu bari bi yenn saa yi ngay gis nit ñi jógee fii dem ba dakaar dem ba Saint-Louis wala ba Bandé. donc dañuy lancer on appel solennel à monsieur le président de la République son excellence monsieur Macky Sall pour mu mu xoolaat mbir mi parce que duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba duñ ko nangu ëllëg. ndax soo xoolee da ngay jël université bi nga naan da nga koy xaajale xaaj bi nga def ko maatam beneen bi nga def ko Kanel beneen bi nga def ko Ciloñ beneen bi Ngijuloon euh, fale Añam beneen bi Ndioum ñun pour loolu réglé wul problème bi. parce que ñun dañoo xool ñoom seen intérêt crypto politique moo tax ñuy ñu naan nañu def ay multisite mais ñun le maintien de collectifs bugguñu benn bëgguñu mu am ay yenn sit ay site yu bari ñu benn site lañu bëgg parce que. suñu njëriñu doom la ñuy xool. ñi nga xam ne nag ñoo jiitee kuréel gu bees gi di collectif ne touche pas mon université di rafetlu nag jéego yi nga xamante ni président Macky Sall teg ko gannaaw bu mu nangoo réaliser ab projet bi ñu yàgg gënt mu jëm ci wàllum université ngir wàññi jafe-jafe ndongo yi rawatina étudiants yu matama ndaw yi bokk ci collectif bi nag di ñaawlu tekk tekkaaral gi ñu ne seen kilifa yi rawatina ci wàllum politique ñu ngi ne nemm ci suñu dossier bi nga xamante ni moo ne da leen waroon soxal Ali Bandel Niang ñu sant ko bu baax gërëm ko des ba tey foofee ci diwaanu maatam ak coow la euh, doomi Matam yenn sax nag mbir mi dafa war a gaaw ndax euh, président Macky Sall euh, moo ko dige woon foofee ca capitale régional ba ne fa la koy amal te itam ñi ngi xaar dige boobu maanaam bor la ni ñu koy waxee ñu def ko dañuy teewlu du Mbodj ci Ndiaye moom nag ma nga bokk ca COSYDEP bokk itam ci kuréel googu nga xam ne dañu ko taxawal dañuy teewlu ay kàddoom nañ Sénégal yëpp université yi boo demee boo bu ñu nee Berger Saint-Louis la nekk bu ñu nee Assane Seck Ziguinchor la nekk bu ñu nee Cheikh Dakar la nekk université Souleymane Niang dañu bëgg mu nekk Matam ngir ñu honoré ñu xalaat dañuy war a pàcc xel ànd ak dal bàyyi les politiciens la yooyu amul benn njëriñ ñun ñëpp dañuy dem bàyyi ko fii nañu bàyyi ngir ñu xool lan la def rek ngir nit gën daw si seen boor ñun nag lu ñu yëkkati lu gën si suñu dëkk lu gën si suñu xale loolu moo ñu yëkkati moo tax ñun dégg ñu comme ñoom duñu leen dégg ndax ñoom ñoo yoroon baatu askan bi te comme ñoom duñu leen dégg ñun dinañu dégg ngir ñu xam ni ñun lu ñu yëkkati mooy nañu góorgóorlu ngir université bu maatam ñu def ko ci Matam aywa ñu wax itam ci leneen muy xibaar bu tiis euh, di euh, ab njegemaar bu am fukki ak ñaar daal moo tàbbi ci teen euh, ci dëkk bu ñu naan njulli nekk ca Ngoy ca département bu baambay bu nu sukkandikoo nag te xibaar yi jot ñu ne moom gune gi da doon root ca teen ba yàgg fa lool ndax la mu doon root ci ndox dafa xawoon na takku xam naa lu ci mën a am daal mujj na tàbbi ci teen bi moom gune gi ba ab néewam sax génnees na ko xibaar bi ki nu ko baaxee di Babacar Diouf télévision Futur Média ci diwaanu Njaareem jàpp Bambey lu ci euh, fanweer ak juróom-benn ci hectare euh, moo fa judd nguur ak Sénégal moo joxi kayit maanaam euh, ndigal benn société boo xam ne daal day yëngatu ci wër ak xayma lu jëm ci wàllum zircon loolu nag askan wa ne bu du ko defee làmbaay ñaaw ndax ñenn ca ay borom yi kër wala boog yenn ca borom yi tool bu nu moytuwulee seen ab liggéey danu ko danañ ko ñàkk ndax foofee ñuy bay amaana bërëbu liggéeyukaay boobu mënees na koo jël mu mel ne mbaaloo gi tax na ba jëwriñ bu ñu dénk wàllu miin amal fa tukkib nemmeeku waxtaan ak askan wa euh, xool naka la ñuy def euh, ba jël ci euh, saafara foofee ca diwaanu Ceeskaay Cheikh Anta Diop ak teex ñoo fa toogal télévision Futur Média site di ab site boo xamante ni toll na ci fanweeri hectare ak juróom-benn nekk ci diggante kayaar ak Jandeer bërëb bii dañ fee fas yéene génne li ñuy duppee zircon ab société bu tudd AIG moom la nag état bi joxoon permis ngir mu mën koo xool exploité ko waaye nag askan yi nekk ci diggante kayaar ak Jandeer jógoon nee nañ waa mairie bi defuñu ci benn délibération askan wi jógoon na kenn boolewu leen ci rawatina dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo wër site bi loolee taxoon nag ñu dakkaloon liggéey bi jëwriñ bi nga xamante ni moom moo yor wàllu miin ak géologie dikkoon nag doon coytu mbir mi ngir indi ci saafara. Jendeer ak kayaar la ñaari ñaari communes yooyu la la concerné bon am na euh, foofu benn société bu ñu koy AIG euh, moo amoon. Euh, permis de recherche pour vraiment fe trouver foofu ay jeunes kon bu rëy la woon si biir permis boobu sax am na ay village yu nekk yu nekk si biir eh, amoon na aussi ay carrière yu nekk si biir donc il fa que ñu ñu waxtaan gis nañu xool nañu fu mu toll suñu bëggee en tout cas exploiter boobu ñu continuer changer un peu démarche bi waxtaan ak maire yi waxtaan ak village yi waxtaan ak population yi eh, parce que ñu jëm si élection municipale am na yu bëri xam ne mën nu ko régler aussi si élection yu passé war taxaw pour en benn solution euh, définitive. du jëm nag ci wàllu carrière yi nga xamante ni ñu ngi ci gox yooyee. jëwriñ ji sax nee na nañu aar bu baax lu jëm ci wàllu kéew bi. nan la carrière war a def wala ñu gas ba mu euh, yàq euh, dëkk bi il fa que ñu ñu wax ñu xool nu koy contrôler. mbiram responsabilité sociétale yamul rek te jël ay koppar di jox askan wi. waaye nag dafa fekk ne promoteurs yi yëngu ci wàllu carrière yi nañu aar bu baax wàllu kéew gi bu fépp fu ñu gas bu ñu ci noppee Cheikh Anta Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci wàllu wér gu yaram ak euh, ñetteelu pàcc bu programme bi soxal euh, ut ay saafara ci jàngoro ji ñu dippee sëqat su tarsi wala tuberculose ak sida ak itam euh, sibiru ñu ne foofee ci IRESSEF lañu ko daal tàmbali liggéey ba programme bi nag mi ngi soxal fukki réew ak ñaar lool nag daal jëflante diggante Europe la ak Afrique ngir rek indi daal ay ñàkk yoo xam ne dina mën a indi saafara ci tawat yoo xam ne lu jëm ci wàllum ñàkk euh, bokk na ca la ko mën a joxe euh, ci yenn ci réew dañuy teew teewlu professeur Souleymane bu moo jiite euh, bërëb boobu di IRESSEF kàddu yi mi ngi ko dénk du Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb dafa am benn mbooloo mu daje pour Afrique de l'Ouest ci xeex yu ñuy wax sida tuberculose paludisme la commencé woon mais dañu dem ba xam ne am na yeneen feebar comme les maladie non négligées ñuy boole ko ci biir et mu demaat ba yenn feebar yu ñuy wax les maladies émergentes et euh, euh, comme ébola euh, coronavirus bi yooyu yëpp ñu boole ko ci léegi nag dañ koy boole mooy dañuy boole suñu doole xeexandoo ko déjà mooy ñu boole di bokk di liggéeyandoo loolu a mag mag yoo xam ni IRESSEF parce que rek ñeneen bëri nañ ci sous région bi ñoo xam ni dañ leen xam ak ñoo xam ni xaj na seen doole yeggul foofu léegi nag ñu lënkaloo di liggéey ensemble di déjà liggéey defandoo gëstu bi mais aussi di jàppale pour former nit ñi ba pare di jàppale aussi pour di euh, leen wutal leen loo xam ne mën nañ ci liggéey matériel ak yooyu donc bi ñu ko defee nag dañu jëkk a commencé ci wanetaam benn boobu bëriwuñu woon fukk ak ñeenti institution lañu woon ci juróom-ñaari dëkk après nag boobu EDCTP moo ñu ko financé woon bi ñu demee ba def suñu liggéey bi ñu kontaan ci ñu defaat ñu beneen ba pare euh, léegi nag boobu mooy jeex nii après nag biñ ko wanewaatee ñu muy phase 3 bi ñu xam ni lépp li ñu waxoon ñu ngi koy def ñu jox ñu phase trois bi professeur Souleymane Mboup jiite IRESSEF ñu wax ba tey ci wàllu wala des ba tey ci wàllu wér yaram ak lu jege daanaka téeméeri doomu aadama opéré nañ leen ci diiru fukki fan loolu nag euh, ñi ko amal di World Wide euh, ñu ne euh, Loka Afrique moom moo ko amal ak World Wide la ñu bëgg rek wala bokk lañ ca bëggoon mooy fexe ba ay faj fajkat yu xarañ ñëw fii ci réew mi jàppale ñenn ci askan wi.

mission bi nag may na nag ñu jël li nga xam te ni moo di ay njaboot gu bëri euh, ba sax ñu mujj jotaat li nga xam te ni moo di seen i mbégte euh, amoon na juróom-benni bloc yoo xamante ni euh, ci wàllu intervention chirurgicale te di doon tourner en plein régime. ay docteurs yoo am tour ñoo ñëw teew ci Sénégal. ci njàppalinu ki nga xam te ni moo di Mbacké Dioum. cette année nous mission bi ñu indi euh, juróomi kon euh, chirurgien yu xereñ ci nekkoon mu nekk nag mission bu musul am euh, ñu taxawu ay njaboot li nag kon ñu gërëmee ko ki nga xam te ni moo di Mbacké Dioum. pour que cette mission puisse être organisée. ay consultation ay intervention chirurgicale yoo xamante ni ñu ngi ko amalee ci hôpital principal respecté nag li nga xamante ni moo di mesure de sécurité yi ci jamonoy mas mi ñu tombeel Mamadou Fall ñu sant ko bu baax këram ko des ba tey ci wàllu wér yaram ak euh, docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye mi jiite euh, euh, mi directeur général directrice générale de la santé moom nag daal amal na ab tukkib nemee ko ci diwaanu Tambacounda la mucc xamle itam ne fii ak ki jamono daanu tijji laboratoire bu mag foofee ca Sénégal oriental ma ngay sàkku itam ci askan wi ñu dem ñàkku ji dañu koy teewlu kàddu yi Amadou Dieng ju moo ko taataan. docteur Bayal chaque fois danaan ma euh, DGS fu ñeneen ñi toogee euh, ñaari waxtu ñeenti waxtu ba benn fan dañuy am seen ay résultats Tamba day toog 72 heures loolu baaxul ci benn jàngoro parce que dañ jàngoro am na kiy faj mais am na ki nga xam ne moo doole fajam ak lu ñuy wax paraclinique mooy diagnostic biologique wala diagnostic radiologique wala leneen donc actuellement. moom tey ci suba fàttaliwaat na ma ko parce que nag ma jaajëfal ko parce que lépp lu ngeen ko wax mu ñu koy rapporté mais fàttaliwaat na ma ne labo régional DGS na fi am ma wax ko ne ko ci bi ñu jógee Dakar ñëw fii tey ci RIA bi am na ko jógee laboratoire mais ñu ngi ñaan xam naa ne presque dina am laboratoire régional moom dinañ ko samp fii ci Tambacounda te yaakaar naa ne monsieur le gouverneur si jàppale bu baax a baax a conseil départemental et yaakaar naa ne bu dee équipement bu dee personnel loolu ministère la santé dina ci taxaw ak ñi koy jàppale partenaires techniques et financiers yi nga xam ne moo leen fàttee gërëm ci ñi nga xam ne ñu ngi ciy jàppale nguuru Sénégal. mais daal ci turu ministre de la santé action sociale monsieur Abdoulaye Diouf nee na tey ñu lancé ci turu gouverneur yëpp lépp loo xamante ne war nañ ko def ci RIA yi te fan yi di ñëw ñu delluwaat ci yeneen juróom-ñaari régions yi. wala Moderna Sénégal am na Pfizer mooy Sénégal am na fu muy conserver presque mooy moins 70 degré kenn xalaatu ko fi woon mais également Sénégal ci fan yi di ñëw. xëy na dina am Moderna donc ñàkk moom ñàkku fi xëy na sax ngeen ma ko fàtte laaj ñàkk nag day périmé waaw li am solo mooy bu périmé ñu détruire ko avec des commissions Marie euh, docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye doon euh, seq waxtaan ak musa Omar Gueye amadu Amadou ñu toogal groupe Futur Média ca diwaanu Tambacounda ak li ko wër ñu jeexalee lu jëm ci wàllu wérgu yaram ak variant bu bees bii di Omicron euh, xam ngeen ne doon nañ wax dugg na ci réew mi ak lu ci mën a am ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum tourisme mu nee ñu daal bëgguñu ñu tëj benn yoon ay frontière waaye lañu bëgg rek mooy daal ñu fexe ba loolu ñu naan geste barrière muy sàmmonteeg sa bopp sàmmonteeg nga jëflanteel ñu gën koo ñoŋal ak ñàkk yi ak lu ni mel ci dellu siwaat euh, ci suñu yeneen jataayu xibaar léegi léegi tàggat yaram Cheikh Tidiane Diaw laay dalal Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fati. aywa ñu doore ko ak euh, association bu club ya fekk baax ci Europe bind bataaxal. lanu bëgg mm-hmm. mooy ñu neenal wala sax ñu euh, dàq ba jëmmi jamono Coupe d'Afrique des Nations. waaw ECA xaw ma ECA wala euh, CA ñoom daal nee nañu li ñu bëgg mooy ñu toxal Coupe d'Afrique bi wala ñu annulé ko looloo tax ñu bind bataaxal jagleel ko CAF ak FIFA. ndaxte ñoom li ñu gis daal mooy Cameroun euh, amul maanaam joxewul ay garanti euh, ngir rek euh, sàmm kaaraange seen joueurs yi surtout ci épidémie maanaam pandémie coronavirus bi ñu nekk ak variant Omicron bi loolu nag Abdoulaye Thiam li nga xam ne moom moo yor ANPS nee na argument la boo xamee ni xel mënu ko nangu te kaaf warul xool ba ñu koy yàpp di ko proposer lu ne dañ koy teewlu. dëgg yàlla ban li ñuy woowee en qualité wala intérêt à agir bi nga xam ne ECA am na ko pour saisir CAF wala saisir FIFA pour tout simplement arrêter li ñuy sunu compétition bi nga xam ne moom mooy moom mooy Coupe d'Afrique euh, gisuma ci benn qualité donc xaw ma fu mu ko teg pour naan day saisir FIFA wala wala wala CAF deuxième aspect bi nag mooy euh, li wolof Njaay di faral di wax uude nu mu la gisee noonu la óolee euh, soo bëggee ñu respecté la yow yaay sa bopp Euh, CAF contingent la boo xam ne cinquante 54 états moo ci nekk mënuñu nag euh, bu ñuy soxlaa mooy par exemple coupe euh, élection bu jotee ñu soxla ñu soxla ñu wala tout simplement bëgg nañu jël coupe du monde ñu yóbbu ko à deux ans ñu soxla ñu ñëw premier continent boo xam ne ñu ñoo ko wote lépp lu FIFA soxla rek ñu defal ko ko te pendant ce temps du ñu am si benn respect du ñu am benn considération loolu dafa war a dokk Euh, troisième chose bi aussi prétexte bi ñu jël nag man moom ma gën a metti par exemple jël coronavirus wala jël aujourd'hui mooy li nga xam ne mooy omicron naan euh, ñun africains yi amuñu possibilité pour euh, def suñu kemtu lay kattan pour joueurs yi nekk dans d'excellentes conditions surtout sur le plan sanitaire te loolu teguñu ko fenn. fa muy mujjee ndaxte ñoom nee nañu euh, suñu leen toppul ci loolu sax dinañu téye seen i joueurs mu mel ni kon ay Sadio Mané Edouard Mendy du ñu leen gis waaye euh, xam naa ni daal yëf yi du mujjee foofu. Mm. yaakaaruma ko euh, ñu continuer ci football euh, fii ci Sénégal euh, Tëngéej FC nekk ci jafe-jafe jamono ji ndaxte stade boobu mu waroon footballé di Ngalandou juuf nag dañu ko yàq ci jongante nawetaan ba fa amoon ba nit ñàkk ci bakkanam looloo tax bu ñuy mujj recevoir fële ca Mbaaw muy situation boo xamee ni daal ñoom ña ngi koy naqarlu bëgg nag Ligue sénégalaise football professionnel jàpp ci ak état bu Sénégal ngir rek ñu defaraat stade bu Rufisque woowu ak mu gën a gaawee dañ ci teewlu reportage su Ahmadou Ba ak Cheikh Sadibou Diarra bu ñu xamagul fi mu yam te Teungueth FC du mën a dalal ay jonganteem biir dëkkam stade Ngalandou juuf bi ñu yàq bokk ci lu ko waral ñu di ko naqarlu ñu ñu ngi ñu ñu ngi wax daal waa Tëngéej ñëpp nañu calmé xam ne sport foo la sport foo loolu yëpp jaru ko erreur la mais nañ ñaan rek bés bu bi paree de loolu bañ a amati foofu quoi loolu la ñuy ñaan daal. joueurs yi supporters yi ak dirigeants yi manko di sàkku ñu gaaw defaraat stade bi ligue football professionnel bi di ci woo. nguur gi. ce préjudice bi muy indil équipe bi dafay dal également ligue bi moo tax ñaan autorité municipale yi di ñaan autorité euh, étatique yi di ñaan fédération ak képp koo xam ne rek mën nañ génne waxam indi kat kaddoom ba nga xam ne stade dañ ko defar nu mu gën a gaaw dans les plus brefs délais pour que week-end bi di ñëw Tëngéej mën see fexe ba mën a euh, recevoir fi muy fi muy recevoir muy à parce que bu ko deful rek dina am impact bu rëy ci équipe bi dina impact ci ci ci ci déroulement championnat bi déjà ñun amuñu stade bu ñu jëlee benn stade boo xam ne c'est c'est un stade moins mën na gën a perturber li ñuy def muy ligue bi muy nawetaan muy fédération tous les euh, les les les fédérations le le corps sportif le ministère ñëpp nangu nañ ni violence amul place ci stade yi na xale yi xam na ko supporter yi xam xam ni football foo ak ree la. Teungueth FC bokk ci club yi gën a xarañ ci Sénégal ci at yi doon sukkandiku lu bëri ci publicam bi. li ñu tëj stade Ngalandou Diouf soo moyuwul dina leen sonal test bu njëkk bi weekend bii di ñëw jërëjëf Cheikh bu Diarra fàtte ñu jeexale ko ak euh, Ligue sénégalaise de football professionnel ñoom nag dinañu am seen traditionnelle conférence de presse euh, ëllëg lay doon nga xamee ni ren yi lañu ko tàmbali loolu nag quatrième journée championnat bi lañuy ñuy waajal ñeenti équipe yi nga xamee ni nag ñoo seq ñaari affiche yi euh, ña ngi leen fay xaar muy Jaraaf AS Pikine beneen bi affiche bi di Guédiawaye football club ak US gore merci beaucoup Cheikh Tidiane ëllëg incha allah dinañu àndaat ak yow ci euh, xibaaru diggu bëccëg gi ak li soxal wàllu tàggat yaram. incha allah ñu dem ci ponk bu mu julli ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jëf genn golo gàtt na waaye lu ca dal borom gàññe ubbi l'observateur université yi ci réew mi yëngu nañu étudiants yi ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru étudiants yi ci université Gaston Berger bu Ndar étudiants yi ci université Iba Der bu Kees ñoom ñépp a ngay jàppale seen naataanga étudiants yi xultoo ko ñaxtu ci université Alioune Diop bu Bambey li mu far jur di enseignement supérieur bu salfaño journal bi di l'observateur nañu lépp quotidien gis ca ne état bi moo doxalul dëgg moo waral fitna jàngi jaaba jonge ci université yi ci réew mi amical yi ñu suspendre ak coordination étudiant yi ñu tas ci université Alioune Diop bu Bambey moo jur ñol-ñol yi am ba moo waral université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru université Gaston Berger bu Ndar ak université Assane Seck bu Ziguinchor étudiant yi jug nañu ñoom it di tubayul seen moromi étudiant yi ca Bambey recteur bu université bu Bambey di Mayi Diaw ay kàddoom ci xët mu njëkk Le Quotidien muy leeral ne mënut a ñàkk bañ a jëfe décision yi ñu jël ñu jël journal la mandat gis ca mu njëkk ma coowal étudiant yeeg yu université yi journal bi tënk situation yi am ci université yi ci réew mi ci ñaari waat mu di njàng meek njàngale mi jaxasoo na journal a fa ne ko liy bu ñu ko seetaanee ba mu yegg ca ñag ba yëf yi dina fi gën a jaxasoo ne jàppalante gi am ci diggante étudiants yu université bu ndakaaro bu ndar ak bu Bambey dara ci wóorul étudiants yu ndakaaro yi wane nañ seen bopp démb yu ndar it nee nañu amul seral te étudiants yu université bu Sine ñoom it fas nañu yéene wàll a yéenekaay bi nee nañu ku yóbbu séentu yeneen i njëg yokkati ci dund gi a jur journal na ci ñeenti ponk La Tribune ko moo taxit budget Sénégal 2022 mu di koppar yi ñu nattal réew mi mu war koo doxe déwén natt nañu ko ci juróomi junni milliards yu teg téeméer ak juróom fukk waaye na xam ne fekk na fi jafe-jafe ki problème yu ñu toll benn ci problème yi askan wi di jànkoonteel mi ngi ci anki dénekaay mu di factures yi ndox yi seen eau di jox askan wi te muy ay factures yu mën a daggub xool ndax seer ab gëstu bu yaatu la ci journal enquête def ba wax ñu ne seen eau dafa tas yaakaar ndax ndox mu bon mi muy jox askan wi ndox na quartier ak i facture yu seer ba jéggi dayo mu di tuuma yooyu enquête dina kay nañu kilifa yu seen eau yi nanguwuñ koo gàlloo nee nañu gouvernement bu Sénégal mooy fixé tarif yi bu ñu ci wax ay facture yu seer nañu ko wax ak gouvernement bi kenn ci waa gouvernement bi di Serigne Mbaye Thiam ministre eau mi ngi wax ci enquête dina ne santaane nañu ay audit ci facture ndox mi nañu bàyyi ba xam la cay tukkee ab tukki ñaare dafay soxla passeport coowal passeport diplomatique diplomatique bu waa division investigation criminelle feeñal ci diggante présidence de la république ak ministère des affaires étrangères libération nañu ñu doon def trafic passeport diplomatique yooyu ay turi kilifa yu mag ci réew mi lañu doon bubboo daan demandé ay passeport diplomatique ci seenu tur ñi ko doon def juróomi million jàpp juróom-benn million la daan jaayee passeport diplomatique yi li feeñal deal ba mi ngi tukkee cib signalement bu général Maïssa mbir mi nu mu gën a gaawee am na ñeenti nit ñu ci jàppagum Walf Quotidien nañu waa palais ba ñoo kalaatel dil ba aide de camp bu président Macky moo sisir waa dikk ñu dikkaat ci l'observateur wax ci projet de loi bi ñu war a yóbbu assemblée nationale ngir criminaliser acte LGBT journal bi gis na ci ne góor jigéen ñi ñoo ngi wili pande état bu Sénégal xamal nañu ne proposition de loi bi ñu waroon a déposé reporté nañu ko journaliste bii di Cheikh Yérim Seck di xam ne ci xët mu njëkk wootee ci réew mi mën naa jur xeetu boycott économique ci Sénégal maanaam réew yi am doole téye seen loxo ci koom-koomu réewum Sénégal waa ONG Jamra mel ne ko naan ko ci journal L'Info maam Mame Matar Gueye ak ñi mu àndal mi ngi sàkko ci journal bi bépp député bu bañ a woote loi boobee di criminaliser acte LGBT na askan wi génn ci yow ba set wecc Mouhamed Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen ci safo bi ak kóolute bi rédaction bi dik leen daje ngoon ci kàttanu yàlla ak yeneen xibaar ma ba joxaat leen ngay euh, Pape Cheikh mu euh, wéyal midi plus. <laughs> est-ce que est-ce que xam nga ni normalement li nga sol. waaw musóoru euh, sama invité Rahma. waaw nga waroon jël ngeen échanger. waa bëgg la de. parce que musóoram moo gën a ànd ak moo gën a ànd ak li nga sol. musóor bi dafa rafet en plus. mais Faty yaa mën a toilette nag. <laughs> te taatu la wala kan la. gis naa la tey ombelico. <laughs> ah ombelico d' accord Adja euh, chérie Mika. très belle tenue. on est content bu ca kanamee ñu àndaat ak rédaction bu télévision Futur Média sinon euh, site internet bi www.igfm.sn Faty. incha allah Pape Cheikh il faut rappeler que bientôt nañu la invité pour euh, euh, vraiment parler de cette chambre. oui pourquoi pas. chambre ñaata la sax. <laughs> juróom-ñaar. chambre sept. allez bonne journée Pape. merci Mame Faty merci beaucoup. jërëjëf allez